confrère Pape Djibril Gueye maa ngi lay nuyu. waaw maa lay sant bu baax. Sénégal gagné na 1 résultat bi c'est bon mais est-ce que c'est satisfaisant. Bon, déjà, munuñ ne pouvons pas dire que ce n'est pas bon parce que déjà, on a empoché les trois, les trois points de la, de la victoire. C'est ce que nous solo. Parce que aujourd'hui, nous pouvons dire que le match est un peu ou au moins, le euh, match est benn résultat peut-être positif, c'est-à-dire que nous terminons un match nul. Parce que si on regarde fin du match, Guinée a ñaar une occasion franche au Hamantini, bon, nous pouvons pas Même premier mi-temps, si on regarde, peut-être première mi-temps, 30 premières mi-temps, mun naa ne euh, c'est la Guinée moo nekkoon doon jouer donc toutes les actions offensives venaient du du côté adverse donc mun nañ ne c'est une euh, c'est une victoire qui est là dañ koy jël parce que qualification bi c'est ça se va se jouer sur deux matchs retour donc c'est une satisfaction mais je pense que peut-être au retour il va falloir ñu wane leneen du dul lii ñu fekkee lii lañ nar a wane retour mun na gën a mun na xaw a compliqué donc déjà présent il faut ñu xalaat euh, comment faire pour Euh, defaraat organisation offensive bi parce que Sénégal mun naa ne si deuxième période bi ci lañ amee occasion ñu concrétiser ko donc joué nañ première mi-temps yëpp amuñ occasion de but alors que yaa recevoir donc c'est un peu inquiétant et donc soo demee à l'extérieur pour war a jouer ce deuxième match ci lay gën a métti sur le plan défensif peut-être mun nañ gis nañ ay quelques errements mun euh, mun nañ ne tey euh, c'est le gardien de but c'est le gardien voilà Aliou Sénégal gagné na 1-0 ana na nga jàngatee match bi. Euh, waaw on dira que essentiel bi def nañ ko ndax gagné neen 1-0 moom moo gënoon defoon 0 mais bon ya a un certain goût d'inachevé parce que sentir ñu benn euh, équipe euh, sénégalaise bi nga xam dafa poussé équipe guinéenne bi à bout. puiser ñu ci seen ressources peut-être que c'est dû à mën naa jàpp ne posture xaw a bi nga xam sóobu sóobu boobu parce que soo xoolee ci composition d' équipe il a mis trois milieux de terrain nga ne seen vocation c' est beaucoup plus euh, comme des récupérateurs ils sont peu créatifs parce que ñëpp xam ne ni euh, Lamine Camara c' est un relayeur Ousmane Marouf Kane c' un relayeur c' un milieu de terrain sentinelle Euh, keneen ki Moussa Ndiaye mi ne terrain relayeur la daanaka Jean-Louis Barthélémy moo ci xaw a nekk créateur moo tax soo xoolee premier temps bi jeu bi dafa xaw a mais deuxième période bi le fait que ñu xaw a replacé euh, Malay ci axe bi moom moo andi but bi c'est euh, but bi nga xam ne saa peut avoir son pesant d'or en plus on a Abdou Alioune Badara Fati qui s'est montré décisif ci dernière ak ñaari action yu mujj yi mu génne ñaari arrêt décisif mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom léegi nag maintenant faudra aller décrocher la qualification à Bamako kon ko duñ jouer à Conakry faudra ñu wane euh, une meilleure solidité parce que c'est fin bi on a un peu prêté le flanc loolu déconcentration boobu waruñu on doit être concentré de la première à la quatre-vingt-seizième minute donc faudra que gars nangoo xeex nangoo faayat parce que équipe euh, Guinée xam ne ni c'est une équipe athlétique bu bëgg ay duel te soo xoolee tey dañoo joué xaw a réservé wu match bi ñu ñëw dinañ génn joué ñun tamit faut faudra que ñu am ay joueurs yi nga xam ne dinañ mën a exploiter espace bi am dans le dos tey on l'a pas assez exploité faudra ñu exploiter ko ci match bi di ñëw incha allah. merci beaucoup ok. maa ngi lay fay di fay. Sénégal gagné 1-0 positif satisfaisant la wala noo jàngatee match bi. résultat positif la satisfaisant c'est un peu trop mais c'est positif parce que quand même euh, bu ñu fàtte ne trois dernières éditions CHAN bi Guinée moo ñu éliminé 1-0 c'est vrai que takkul trop mais c'est déjà bien euh, jiitu leen quoi ça que ñoom ñooy commencé di ñu jéem a attaqué donc résultat bu baax la c'est pas satisfaisant mais c'est un bon résultat. noo bi. bon pour man le Sénégal a trop joué probablement ils ont on a trop joué avec le frein à main mel ni dañu ragaloon dañ doon calculer mel ni dañu ragaloon dañu xaw a ragal Guinée te man je euh, bon pour man amoon nañ ay joueurs yoo xam ne suñu démarré woon ak ñooñu certainement équipe day gën a joué mais mel ni dañ doon xaar dañ doon jéem a xool Guinée lan la andi dañ gën a xaar donc et puis pour man soo nekkee à domicile da nga war a profiter jouer quoi pour gagner mais heureusement bon gagné nañ 1-0 c'est lan ngay suggérer Pape Thiaw au ah déet euh, bon forcément euh, la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer c'est-à-dire bu ñu leen xaar parce que am nañu seen faay seen défense boo xoolee baax am nañu seen faay donc ñun ñoo leen jiitu jiitu mais duñu du parce que dañ leen jiitu dañ leen war a xaar non non dañu war a jouer suñu football quoi comme su doon 0-0 la. merci beaucoup grand El Hadj Malick si maa ngi lay ñu ngi lay fay bu baax sëñ bi. Sénégal gagné na 1-0 ana nga jàngatee match bi. waaw mën nañu jàpp ne lam lañu war a mën a jàpp. victoire bi nga xam ne Sénégal am na ko parce que seule la victoire est maintenant nag mën nañ épiloguer ci ni ñu ko amee gis nañ équipe sénégalaise boo xam ne wane na ñaari xar kanam première mi-temps bi équipe sénégalaise boo xam ne am ay jafe yu bëri guinéens yi am emprise ci match bi ak seen qualité technique nga xam ne am nañ ko maîtriser match bu baax a baax a baax ñu def ay yenn yenn incursion yi manque de préci manque précision ci ci ci yenn gest yi technique yi nga xam ne grand joueur waru ko raté deuxième mi-temps ñu gis beneen équipe sénégalaise boo xam ne na xar kanam bu gën ëpp pass-pass gën a am maanaam déchets yi ñu moytu ko commencé da jël ay initiative tu as vu même bii bi nga xam ne Malal junior Malal junior daan dugal na ko donc équipe man lañ lañ lañ di gis xam nga pourquoi match bi am nekk particularité ñu war a qualifier parce que dañ nekk ci dynamique bu am solo jël coupe d'Afrique dem coupe du monde da nga war a qualifier CHAN ba pare daje équipe boo xam ne tout le temps daf lay éliminer muy Guinée 2016 2018 2020 mu xañ la ñetti CHAN donc danga war a qualifier pour dëggal. bonne santé bi xam ne ci football bi toll waaye tamit wéet li ñuy ne football local bi doxul xam nga football local bi mooy baromètre bi li nattukaayu football local mooy CHAN bi donc dañu war a qualifier maintenant nag il faut tirer les enseignements et bien se préparer pour le match retour parce que ñu def match boo xam ne bu important lay doon daan gagné daan nga xel mais Bamako tamit beneen match lay doon def lii tirer enseignement yi a baax a coow entraînement équipe nationale c'est encadrement équipe nationale leen di suggérer. non su suggérer man du ma technicien buy wax buy jox ay. par exemple ñu terminé match bi dama leen dama loo. ñu terminé par exemple Abdou Seydi Rémo Diémou Ndour dama leen départ loo. moom nag moo am dernier dernier dernier décision am c'est lui qui a dernier mot moo ko am mais am na xam ne dama leen départ loo parce que saison bi def moo tax ak fenn saison xam def nañ ko parce que ñoom ñaari ils du sacre du Casa Sport Abdou Seydi ak Raymond bien vrai que bu ñu bulus ñu le meilleur buteur mais boo gisee tey jii il n'a pas été dans son grand jour moom ak Jean-Louis Barthélemy Diouf donc il y a des choses yoo xam ne war nañ ko revoir moom nag il est bien placé et mieux habilité à donner pratiquement tirer leçon enseignement yi waaye tamit apporter li nga xam ne manqué maintenant su ko defee ñu qualifié li ci ëpp solo moom mooy